comme ni ngeen ko nous avons fait une réunion Nous avons fait liñ war wax yëpp ci geste barrière yi def nañ ko am distanciation physique sol masque Nous avons fait nañ ko fi yàlla may ñu nag ñu am complexe bu toll nii di complexe Valdiodio Ndiaye ñu inauguré en 2016 mu am salle bu ñu permettre ñu def loolu ak condition yi fait euh, fi nag pour lan

fexe waxtaan ak acteurs yi ñu xool loolu kilifa gi bëgg te muy intérêt réew mi naka lañuy defee pour que loolu mën a nekk lu am kon ci loolu le 9 mai bi la ñu waxtaan lépp ba tënk ko ma xam ndoofaan ñaata école ñoo fi am classe d'examen ñaata classe ñoo nekk ci biir école yooyu ñaata élèves ci jàng ñaata jàngalekat la ñu war a mobiliser xam itam lan mooy soxlay loolu yëpp biñ ko tënkee wax dëgg yàlla président nag dafa def ordonnance boo xam ne dafa yombalal collectivités territoriales yi seen liggéey ñu dajee ak sous-préfet ñu waxtaan man ne leen man daal lii laa bëgg a jënd mooy li ma indi tey fii mooy ñu am gel am ay mouchoir am poubelle am saabu ak yeneen yëpp yi ngeen fi gis ay raccord sax yu ñuy kiyee ndox pour bañ a yàq ndox loolu yëpp jënd nañ ko boole ci nag jox leen xaalis

li ñuy wax def poudre ci école yi ba nga xam ne microbe yaak yëpp ñu rey ko loolu ñun ak brigade d'hygiène dinañ jënd produit yi def nañ ko ci marché bi barki demb rek pour que ñu mun ko def ci douze établissements yi nga xam ne ñoom la mesure bi concerne ci wàllu masque nag président de la république Macky Sall nee woon nag gouvernement bi nañ joxe masque yaakaar naa ñu ngi ci kon moo tax ñun joxe euh, joxewuñu masque parce que masque yooyu bu ñëwee ci école yi xale yëpp dinañ ci jot ak enseignant yi li ci topp mooy thermoflash en tout cas li ñu xam daal mooy mesure barrière yi euh, euh, yi ñuy wax thermoflash bokk da nga war a raxasu sol masque ngeen euh, sore wante classe yi ñaar fukk lañ par classe loolu yëpp réglé nañ maintenant affaire yi thermoflash ñun sax fii bañ waxtaanee ma wax ko eh, directeur dama leen ne lu jar a la parce que nga yore sa thermoflash formé yoo ki ko yore bu baax benn xale ñëw ñu def ko nii mu am température 38 degré ñu ne ko yow taxawal na le yeneen xale yi naan kii dafa am corona mu jóge fa yàq addinaam yàq addina këram loolu je crois que lu jar a moo tax ñun daal ndoofaan li Lagem FM muy rajo bi fi ne premier adjoint dina fa dem ànd président CODEC ànd ak présidente euh, des parents d'élèves madame Mbodj bu ñu demee dinañ waxtaan ak population yi. ñu xam ne képp ku sa doom xëy mu am wérgu yaramam demeewul noonu ku ti ne xam nga sa doom nga gis ne warta mën a jàngi nga téye ko yóbbu ko ci docteur mu xool ko. nous nous ñu dem ba école nous avons am problème nous avons ko problème nous avons koy xoolee nous avons na ko nous donc nous avons suñ gis-gis en tout cas ñun nous thermoflash sensibilisation bi la sensibilisation, parce que avons un intérêt nous avons un intérêt parce que nous fi ñëw fii tey defuñu fi thermoflash bo marché ba nit fay amul thermoflash kon yi war nañ ñu te du am thermoflash bi may jox population euh, gel joxna crédit mutuel joxna poste di rek fa gel ak matériel pour que bo demee mën a raxasu waxuma la de mais fépp do fan di tous les commerçants ont nañ masque avant ñi wax sa waxi commerçant installé buntu six portes la surveillance pour que nit ñi di di ku donc Bye.